Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 兄さん、兄さん。 yoo leen doon waxtaanee léegi nga dugg si léegi rek léegi rek dafa am benn soxna su nekk France chrétienne la sax Marie la tudd moo doon moo doon lu seen doxalin rek ak di santaat baax ki rek di di expliqué daal daan nañ Sénégal xamuñu sax waaye jeune daal jàpp na ni kenn bañu ko waaye bu amee ñu ko bañ ni ko ñu ko bëgg ëpp fuuf daa ndegam ay chrétien ñoo koy bëgg di ko war maa ngir li ko yàlla defal